waaw eh, eh, méng méng na comme non non booy bi jaar na fi jaar na fi pour xar bi mais wax na la prix bi voilà mu ngoog bii moom dama la koy wax spécial spécial pour yow kese moo tax ma yar ko jërëjëf kon baax na voilà mu ngi noonu bii moom man xam naa ne moom bés boo ko yeewee ñëpp nañ xam ne xar bi baax na si yow jërëjëf waay kontaan naa trop jërëjëf a ah, Omar sam waajaa ngi xam naa moom du ñàkk mu ñëw naan si ataaya barki yow man ah cim kooku sama waay la même na koy fay yaayam baro ba jërëjëf dinaa ci jot jërëjëf kontaan naa alhamdulilah merci beaucoup. salaamaaleykum ñu def noonu. Alaaji Mbay <laughs> mbaa jàmm nga am. yàlla buy ñëw. boo boo rek. Hmm. da ngay foon day yàq.

ah damaa takk ba mel ni bulldog ba pare li ma li ma gën a li ma gën a met li ma gën a met mhm. gis nga yow dañ naan la takkal max nga bañ mhm. soo demee ba gis gendarme nga génnee sa poste takk pour lan gendarme bi du corona manque respect sa bopp la loolu manque respect sa bopp kon nañu utiliser lu ñëpp deuxième bi mooy dëkk bi métti na bett boo xam ne tabaski baa ngi léegi ñëw man mii nga xam ne ci as xar yi sax maa ngi doon naan bu xar gën a bëree sax ma man am prix yoo xam ne pour dimbal njaboot mbay xam nga loolu kan moo koy indi ah ministre de l' élevage ah. mooy fekk ñi éleva xar yi tabaski jot mu mu subventionné leen jox leen ay millions ne leen dem leen uti xar indi ko ci réew mi mais Mali bi ñuy jëli Mauritanie bi ñuy jëli na ko jox doomi réew mi xaalis boobu bu ko joxoon doomi réew mi ñiy yar xar yi ñoom mën nañ di ñu indil xar Sénégal ñu mën ci jënd ñëpp am tabaski te xar dootul manqué waaye boo jéggaanee Mali bu ñëwee jaayee lu ko neex mënoo ci dara. mukk mënoo ci dara. mukk nag da koy jox waa réew mi. man daal ah. moom waaw. bonjour voilà. bonjour na ngeen def. maaleykum sant yàlla bu En fait, juste, euh, je suis un détachement du ministère euh, de l'élevage. Uh-huh. Euh, je suis venu juste pour inspecter les moutons. C'est-à-dire de me pour Paul parce que ministère de l'élevage y a yabal pour may la non mais garaawul non

C'est par samedi c'est chaque jour ak par samedi hamburger en train dimanche shawarma lundi mu dem laal complet yoy lay normal. quoi tax euh, voilà. VIP. c'est pas normal hein? Ah? Hein? du Car bi waru fi nek nit ñi fi par semaine. Euh, dina sangu euh, ma lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi dimanche lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi dimanche. ok lol trop de sangu lañ koy wax. day am ay éboulement xar bi dafa am éboulement ah. éboulement de l'eau manam yaram bi ndox mi mo bari ci biir. en plus euh, xar bi dafa am ay dentition exsibilée.

kon di nga dé parce que dina dem. dama ni xar mi bu naré dem. mané ne. demoo ma ne. sa waay. amul eh, eh négocier négocier eh, fi eh, dara laa la xar mi du dem ha ah. sëñ bi négocier négocier dafa jeex. mën naa laaj na ma lu xar mi di lek wax naa ko xar mi ci bonne santé la ni bu ngeen waxtaanee ba paré ngeen may ma wax ha ah. di nga xar mi boo ko laalee bañ ma ci ba wa. ok j'appelle les agents. j'appelle Macky Sall. Macky Sall ngay saaga ah. Mbaye. waay affaire yi sérieux na de affaire nekkatul caaxaan de. sérieux la bàyyil ma wax ak waa ji bu ma ko wax bu ko waxul la day jël xar mi yóbbu ko. gaa yi lay woo ñëw jël si ko boobaa doo ci mën dara de. Oh, dëkk bi nag tamit nañ war nañ wax ak ñi ëpp ñoom am doole ah. kii amul doole nguur ko oh, yónnee sama xar mi naa ko yar. mbay bii neex amul baab amul kii kii xool xar mi bu day dem maag moom la ñuy yóbbandoo. non non eh, du dem laa ma la seetaan ngay def loolu wuy ma. kii xam naa leen indi xam nga la dara jox ko. waaw mais day am nooy waxee non loolu mënu ko man calme naa. mais da man calme naa calme ba sës. mu bëgg a wax yóbbu xar bu ma nooy lor xam naa nii. da ngay benn waa nii boo dëgëralee rek nooyal la si yamal da koy yóbbu muy woote bu wootee damay si solo mënoon na ñëw. waa léegi waaw Mbaye wax ma loo yor maanaam posé ko. dama wax ak moom mu jéem a xool lu mu sa

yaa ma joxloo sama xaalis nak yaa ma ko ko jox waaw mbay boko joxul noo no noo nooy def dañ dañuy ñew jël xarmi mi ko man xarmi la bañ mu dem wa bañ yóbbu xarmi xarmi bu naron dem sama bakkan lay jël mais du dem may jox nga ko graw mu ñël xolal xam nga def xar yëpp ngay tek 5000 xar yi nga don jaay 5000 nga ci tek 5000 yoy moy gennat ci xar yi nga yëg récupérer wat 100000 francs du la dëkke dara ñi bu wala leen bàyyi jël sa alal le man sa xaar ma dem sama waji tay tey waxoon naa ko fa laa yendu si dama noonu naa jaar sa mbaar rek waxtaan ak yow wuy ma ci kanam dinaa fi jaaraat ci kanam waaw góor waay yow comme kuy waaye maa ngi xool côté bi yëpp maa la waxoon na fii moo tax ma xool fii gisuma rek yow laa doon ceene fii du fii lañ joxante woon rendez-vous waaw sànq ba fi ceene di la xaar waaw mais sa booy bi sa waa ji sa waa ji doy na war trop sa waa moo bëggee ma ne dil bi dama ko tracé ba mu jeex tàkk yow ñëw jaar rek ngay def affaire yi sedd bi waaw ah, mais dil bi dese na set na ndax sa waay ba tidde sa waay bu ma ko safal woon mais tàppet dëgg la yow heure bi ma la jox man xam naa ne kenn fi ne man xam naa ne man ak su ma ñëwee man moo maa moom rek moo fay nekk ah. dama xam heure am mais léegi nu muy demee booy amul dil moom amul dil ah, amul parce que man tamit dama jël ay risques ah. parce que gars yi bu ñu ma jàppoon fii nañ ma dóor ay cour ba ma mel ni kañ. man mii copain am nag. waaw mais yow garaaw loolu dil bee ci su kalaate woon tey da ngeen di yàqoo rek mais man dañ may rey. waaw léegi feftu feftu non feftu feftu du ma ko mën fils. lu tax non lu tax ma koy def ak risques yi ma jël yëpp. waaw man ay ak jo man non garaaw léegi coolu xam lan la. waaw ah. maa ngi jox la vingt mille jël quatre vingt mille. waaw ah, booy yow xanaa de yaa ma moom yow sama idée sama xalaat bàyyi yow dama la indi na la tegal ma lii. ba yow da ngaa wax rek man damaa exécuté déggoo ma de. man xam naa bokkuma ci action man damaa exécuté déggoo ma de. booy xoolal xoolal ndox mu tàng bu ñu koy naan suukar seetaan. booy man coono laa ma lan la teel nii ma jox la vingt mille laal vingt mille de. feft laay laal. booy boo laalu vingt mille yaa xam. booy feft doo ma sama feft. waaw ah, léegi ko kalaatee mu jeex sax. nañ ko kalaatee man garaawul ci man de sama gaañ dama ne ko dama ko doon loolu du ma arrangé quoi. booy léegi xam nga ne garaaw léegi dinaa jox 30. booy laaluma 30 feft laay laal booy business business mais booy piste yow da nga soof nag 30 000 baaxul. booy dama ne ak li ma daj. booy dama fefti yi man aw ma taxawaay non fefti moom mënu ma la ko jox moom Fall. booy tabaski daa jot te dama am lu may. dëgg non fefti yi mënu ma la ko jox léegi xam nu muy demee. garaaw ba am jël 40 000. booy du ma laal sax 45 000 booy. 40 900 000 sax du ma ko laal. ka 50 fefti yi loolu. léegi garaaw ba ma jox la 40 boo ñëwee gàlle ma jox la lu jox. booy eh ond ond yi maa la ko jox man. fefti fefti laa bëgg a xam. yow neexul joobal quoi. waaw ah, yow yaa neexul joobal suba du ma la woo booy man maa teg sama deal am sama bagage. waaw ah, mais risque yi ma jël nag man man maa la ëpp risque yi ma jël. waaw yow booy. gaaw rek rang mooy gaaw. rang neexoo joob ak taxaw ma daal. wuy ma gars yi wuy ma wuy ma fii du ma fi taxaw nag parce que xam nga yoolal la quoi léegi léegi. waaw man mii daal may dox sama dox. waaw mais beneen rek.